ngeen xam ni suñu jàppale ak yéen kanam la jëm loolu tax président Mbaye Amar mu may dee léegi wax ma jaar-jaar yi ni ngeen jotee terrain beeg effort yi ngeen def ak fa ngeen ci fas yéene dem ma ne ko manit dana la dee kon danaa ci dugal tuuti sama loxo jox leen deux cent millions mu nekk contribution ci tabax bi nga xam ni fas yéene ngeen ko def mu nekk loo xam ne dana nekk contribution président de la république